wa père dañu gis comme na nga ne 1980 yaa nga dugg ci art créé ce groupe mais gis nañu nga dugg ci tëgg créé ce groupe gis nañu ay euh, ku su mel ni Mbéjee Faye mu ci ginnaw Youssou Ndour ci ku su mel ni ah, Baye Demba mu ci ginnaw artiste jigen ku su mel ni Baka Seck mu ci ginnaw tam artiste jigen ku su mel ay yam um, mbay mbay ci ñun ñep ñu ci ginnaw artiste mais yow lo tré nek ci artiste yi magi wa d'accord lool nga ma laajte euh, mom Sada ba ma ko laajee dina ci sawara a tontu. ndax euh, dañ ni fii jàmbaar amul ku ñu dimbali rek a fi nekk Youssou Ndour boo gisee macha allah mu nekk nit koo nga xam ne exemplaire la fii ci Sénégal ku ma respecté muy nekk nit ku baax ku gëm boppam ku nangoo liggéey yore groupe am nekk nag centre bu mag fii ci Sénégal di star bu mag ñëpp xam ko te nu koy nangul. te kon na koy nangul roi roi roi du bala ko wax dama ko koy nangul parce que def na fi loo nga xam ni macha allah kenn defu ko fi kon nag. tey ñoom yàquñu aar bi ñoom mag ñëpp ñu fi nekk ay ñoom Thione ak Youssou Ndour rek ñu mënti doon. ba ci Ismaïla Lo Omar Pène Baba Maal ñoom ñëpp vraiment ay jàmbaari fàkk tëdd lañu parce que nag fa mburu jaar ku fa jaar di nga xam ne mburu jàmbaar la. kon donc lëg loo ko bañ bañ nungul ko gudd noppam ak mën a dawam. bi ci des mooy ku mel ni Youssou Ndour ñoom Mbaye ñoo ñu nekk foofu macha allah boo ànd ak nit koo xam ne yàlla da koo baaxal mu gëm boppam di liggéey fonk la muy def xam fa muy tegi tànkam. mais kon fo jaar da nga parce que ñooñu mbay gay musul joge super étoile ma nga tok super étoile nek ko yusu ndur bakkan yalla def nako man carrière mënuma la ci wax lu bari ci ay jaar jaar mais xamna ni fa mu nek ci nonu ci Viviane ña nga fa tok parce que amna na am na am ku fay way to la may way ma ngi koy tek ca temps mu tay gis bopam ak ñeneen ak ñeneen ak ñu melni mom man nak dama nekkun ci groupe groupe ba ma man sama tanteur yalla weddi mu tass dañ ne xam nga bu ndox touro dañ wax ni nañ an bak non non non roti wat man dama delluwaat sama kër man defaru man pour que nekk ak sama bopp ndax it comme yàgg naa ci aar bi. yàlla dimbali na ma boîte yu bëri même Youssou Ndour rek laa en laa la laa fa joué mais Souleymane pay sunu ndënd yi ngay gis accompagné nañ ko ci fii ci bu mooy jour bi Tanor Diop jëkkee ñëw jàmm gën ma toog fekk na ma studio 26 ci ñoom idée mu way ma tëgg El Hadj Faye maa ngi moom ñoo bokk nekk fukkat si ma doon ko jàppale ñuy tëgg ci lu bëri ñoom ay Ismaïla Ndiaye El Hadj Faye alias Diallo soxna Mari Ndione mais yow lan moo tax àndoo àndoo àndoo artiste bu mag lan lan moo tax àndoo artiste bu expliqué. waaw dama ñëw ñëw mais lan moo tax daa am par exemple artistes yu mag yi dañuy utiliser tëggkat yi wala lan lan moo tax. non man gisewuma foofu fi may gisee mooy ñoom ba nuy jóg ñoom te seen i jamono ay Alaaji Faye ay Youssou Ndour. waaw jóg ak seen groupe. Uh-huh. yor seeni tëggkat macha allah ñu nekk ak seen group di cartonné man ban man it ñu nekk ak suñu groupe gëm suñu bopp. ñun bi ñuy am problème ñoom fekk na ñuy voyagé nañu ñeent seen i groupe yàlla la yàlla xam doy na xëy na peut-être tas nañu wala ñoom ñoo seeni seen i jafe-jafe lii moo waral loolu man bi ma paree noonu ak boîte yi may joué di accompagner ci ngand yi ku ma fa fekk ma di la tëggal di ànd nag ñoom di di échanger teg ñoom ba ci ay njaga mbay ndemu si yàlla si yal na yàlla yokki leeram tëggal naa ko accompagner naa ko. yu bari. waaw kon yow tëgal nga ay ndaanaan yu bari ah. fii Sénégal man la tëgal naa fi ndaanaan yu bari. te jamonoy télé variété amul ku ma àndalul Mbaara Mbaye tëgal naa ko ñu embauché ko Sarano am super ndaje bi ñu njëkk a def RTS lañ ko defee. boobu Ousmane Diouf sax ma nga ca ndax moo doon aw Ousmane Diouf bu RDV li ma wax après dina ko dégg man maa ko tëgg Mbaye Gueye Ndiaye di tëggal Fatou Guewel nekkoon jëkkëru Fatou Guewel Diouf. mais boobu noonu yaa yoroon kii bi wala da ngaa da ngaa ñëwoon bokk. boobu baara mooy way ma koy tëggal baara mbaay. yow daal yow yàgg demal sa bopp. Ah, kay damaa yàgg demal nag sama bopp gëmal gëmit sama bopp xam ni nag eh, temps pour que ma am sama fi bopp liggéeyal sama bopp ndax kuy wàllu yaa ni ku ne sa dëkk dafa tëggul xam nga. moo tax ma formé xale yi jël samay doom encadré leen yeex na yàgg na mais sant yàlla ndax man forcé wu ma ci dara yàkkamtuwuñ ci dara xam naa ne man lu jot day yomb. bi ma ñëwee fii yàlla may ma ma am sama fu ma dugg ak sama njaboot fii la toog di suturlu di liggéey sunu liggéey ndànk nag. su wàllum ñëw bi sax laay ñëw nii Kër Mbaye Fall la fekk mais avant ngaa dëkk Kër Mbaye foo njëkkoon dëkk wala. waaw man nag euh, Sicap Mbao la ma ñëpp xamee jàmm gën Sicap Mbao jàmm.